mbokk internautes ci dal leen nag jàmm fan yi yëpp yéen a ngi doon gis benn photo Serigne Babacar Sy boo xamante ni nag dañu ko saccagé ci allée Serigne Babacar Sy gi nekkee ci duwaanu Ndakaaru photo bi ay samba booy daal di fay jaar xaar ba guddi ñu ñëw daal di koy tojate daanaka photo bu yanj la woon daal di nag euh, tegoon tegoon ci benn cadre en verre lépp la ñu jël daal di koy tojate jël photo bi sànni ci suuf daggate ko tojate lépp ba nga xamante ni nag ku fa itam loolee mooy njëkk a attirer sa attention ci allée Serigne Serigne Babacar Sy lu nu mel nag daanaka ci ay waxtu képp lañ ci daal di def nit yi ba nu koy gis ci suba ga sa ngoon ga lak na am ñoo xamante ni si dañu ñëw bokk na ci waa taalibe Cheikh Amadou Ma daal di nag jël eh, ndogal ak initiative dem réhabilité ko maanaam dañoo jëlaat photo bu fa nekkoon defar beneen bu bees teg ci jël verre daal di teg ci bii defaraat ko ba mu baax foofee ci allée eh, Serigne Babacar Sy ñu daal di koy réhabilité officiellement fédération des daïra Tidiane bu Dakar ak bon banlieue euh, ci njiitalu ki nga xamante ni moom mooy Serigne Mansour Sy Djamil ñoo daal di nag defaraat boobu boobule ab photo euh, daal di koy nag gën a yanjal gën koo taaral euh, ci ab point de presse sax la ko daal di xamle ñoom fédération bi daal di nag ñaawlu bu baax a baax saccage bi ñu daal di nag def ba noppi itam daal di sàkku ngir ñu amal ak enquête ngir sanctionner képp koo xamante ni nag laale nga wala nga taxee ci mbir mu ni mel ñoom daayira ba tey ñu interpellé disciples yi nga xamante ni ñoo daal di nekkee ay taalibi Serigne Marxiste wala boo talibé ci jani ñu bañ a di répondre à la provocation ndax keroog dënn yi jogon nañu xol yi jóg ñu jël ko dal di koy partager bu baax ku nekk am ci lu la metti am ci sax yenn ci daayira yi daal dina bés bu ñu gisee ki nga xamné mo def jëf ju ni mel dinañ ko digalé ak moom bu baax baax sëñ Mansour Sy Djamil daal di euh, wax ci turu présidence bu conseil mondial des religions pour la paix di nakalu nak itam mbir mi ba nopi itam daal di nak li dafa dal di nek lo xamanteni nak mën na taalum réew ndax nag gëm-gëm kenn waru koo fooy rawatina nit ki ak sëriñam nit ak gëm-gëmam nag ñu daal di ñëw mel ni jéem a daal di naka ak di ko jéem a nasaxal te loolee nag képp koo xam ne dañ ci daal di laal war nañu teg ay sanction ndax bu fekkoon ne ca jamono ja ñu koy def nag amoon na ay taalibe ci jaan ñu nekkoon ca wet ga mën nañu songante ak ñoom ba gaañante daal di ci am ñii war nañ ko éviter bu baax a buñ sukkandikoo nag ci sëriñ Mansour si jamin ne fileeg ba fileeg nag amuñu ci benn leeral ci ñi nga xam ne ñoo ko daal di def waaye nag bu ñu sañoon état bi dina jël lii devant rawatina nag police wala gendarmerie ku ci am compétence ñu daal di nag élucider yi mu mais wax na am ay caméra de surveillance xamante ni nag ci guddi ci côté yooyu dinañu daal di nag fonctionner ndax bëri na foofee nag ay euh, commerce yoo xam ne mi ngi fa bokk na ci ay boutique magasin war nañu mën a identifier ñi ko daal di def ba teg leen loxo ndax lii mën na taalum réew bu ñaaree te mu ngi daal di nag woote ci ab dal ci képp koo xamante ni mooy daayira